ci bi ci askan wi nga xam ne ñoom ñooy ay taskatu xibaar fii ci Sénégal rawatina waa groupe Futur Média waa RFM nag xëy tàgge seen benn journaliste bu mag a mag bu ñuy duppee El Hadji Ndate Diop moom it di El Hadji Ndate Diop nag nekkoon journaliste bu mag a mag waaye itam ku fonkoon liggéeyam loolu joxoon ko gëddaam nag nekkoon ci rajo bii di RFM rajo Futur Média bi nga xam ne Youssouma Jigéen Ndour moo ko daal di jiite moom nag ci seede seede yi nga xam ne jot nañu ko nangoo ci ñi mu daan séqal ak daan liggéey ak ñoom nekk na nit ku disponible maanaam kuy taxaw ci soxle nit ñi la waaye itam ku bari woon jàmm la ku fonkoon liggéeyam la nit na koo xam ne itam du dara du ko jaxaseeg nit ci kaw suuf maanaam lépp loo xam ne séq na kook nit jàmm rek ci lay mujj ndax moom ci jàmm kottu ci la daan dox waaye itam fonkoon liggéeyam loolu waaye képp ko xam ne naataangoom nga itam daan na la taxawu ci lu baree bari waa groupe Futurs Médias sax am nañu ay yu ñu ci jot a génne saa bu ñu mosaan a jóge Tiwaawan këram la ñuy daal di jaar bu ñu fa jaaree ñoom ñëpp mu daal di leen di teral berndel leen daal di leen di dalal ñu noppaliku soo ko jàll Ndakaaru noonu itam lañu ko daan defee suñu mosaan a bàyyeekoo Touba jaaraat këram foofee nga xam ne fa la dëkk ngir mu teral leen defal leen ba noppi ñiy soog a delluwaat ci seen biir kër mu nekk nag jëmm joo xam ne journaliste yu yi Sénégal ñàkk nañu benn icône bu jàmbare loolu ci liggéeyam te fonkoon ko ci sama kàddu filing Dakar TV ak mboolemu rédaction bi ñu ngi koy jaale ay mbokkam aw askanam di ko jaale presse bu Sénégal bi rawatina yu suma jigéen Ndour ak ñi nga xam ne ñoo di waa groupe Futurs Médias del déglu del xool Feeling Dakar site bi lay yu leer Dakar yaa ngi Feeling Dakar